asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax jeex leen comme ni ngeen ko gisee noonu euh, vidéo laa doon jël kii di Mahrez mais jégalu nag li muy bougé nii am naa trépied mais dafa fekk ñu doon waaj a dem euh, nekkte entraînement yu kii dafa amaale en même temps donte ñu ko doon xaar mais euh, waa Algérie amuñu benn problème parce que li ñu fédération sénégalaise de football mayul wala waa Sénégal li ñu mayul si suñu ay joueurs mën a wàcc ba tiim ñi tiim leen caméra ñoom fekk na ma jël euh, trépied bi denceeg lépp mais dama jël maxrees nii jël naa tamit kii raté woon penalty bi noonu euh, si chan bi di tëb di def kon jëfe Jorginho ko am jël naa entraînement des Lions ak entraînement Algérie mais bii dama doon jël maxrees kese donc euh, moom laa moo tax muy bougé nii ma si jégalu nag si bougé bi may jël entraînement des Algérie bi la doon bougé nii parce que bii monté wu ma bi mais kon kii boo xoolee Mahrez gazon bi la njëkk a xool ndax mooy loolu ndax nickel na ndax nice na instant yi maa ngi jéem a natt mais am naa yeneen vidéo yu gën a leer yi bu may joxe vidéo entraînement de entraînement Algérie boobaa naa ko dugal donc mu nekk lu xamante ne rafetlu na dama rafetlu waa franchement waa Algérie liggéey bu ñu bañu ñu liggéey liggéey bu am solo donc ci man la man maa jël trépé moo tax muy bouger nii parce que sama loxo laa doon jël boo xoolee conférence bi parce que jaar na fa wax ne ne Edouard Mendy c'est un très bon gardien ndax noonu loolu avantage la moom li xam Edouard mu ne non xam nga donc du avantage xam nga mais nag xam na ko bu baax te Edouard Mendy xam na ko et xaar match bu neex match bu xamante ne du yomb ak champion d'Afrique yi mënul nekk benn match bu yomb donc moom il attend un match bu xamante ne dina métti lool lool lool lool te du yomb et que genre match yi la ñu am la ñuy bëgg di jouer quoi xam nga nee na boo xoolee euh, Sénégal c'est la meilleure équipe d'Afrique te boo xoolee partie yëpp pàcc yëpp que ça soit secteur boo jël du gardien de but Edouard Mendy beeg milieu défense ba ci attaque bi ñu de très bons joueurs donc euh, instant yi man maa ngi conférence presse bëggoon nañ joxe suñu kala question malheureusement si le temps bi jeex mais amoon nañu question euh, tactique surtout pour Belmadi wala pour euh, Mahrez aussi tamit on avait benn question bi ñu doon waajal mais malheureusement rek xam donc mooy loolu bu léegi li ñu fa xaw a téye sax ñu topp ba ay guddi mooy que dañ fa toog fa toog nañ ñoom in Mahrez ñoom yeneen joueurs yi ñoom Mendy Ben waxtaan ak confrères journalistes yu xamante yu Algérie ñoom seen i ñoom sax da leen jaaxal ñu ñu xamee seen équipe ma ne la non championnat France dañ koy suivre moo tax xam nga donc loolu moo tax ma xam équipe euh, seen joueur daanaka bu baax a baax parce que nee na ma yenn Algériens sax xamuñu comme man ni ma xamee seen jeu mais bref pour vous dire que conférence de presse bu am solo dix-neuf minutes la durée donc euh, ma ne naa leen ko defal nii ngeen xam à peu connecté légui ni ni ma dugal les vidéos yi nank-nank parce que day passer vu que demi moy match bi donc dañu wara a balancer vidéo yëpp ngeen am vidéo yi xamante ne tey jii football TV demone na fële ca entraînement bu des Lions dinaa ko dugal ak entraînement Algérie yëpp teew nañu ak aussi tamit conférence de presse bi bu Aliou Cissé bu Belmadi ak bu Mahrez bi ngeen gis nii saafante nañu joueurs yi fotal nañu ak ñoom donc restez connecté daal bo leen connecté lépp lu xamante vidéo la jëm ci match contre Algérie ak équipe probable bi xamante war naa leen ko jox inshallah dina ñëw donc restez connecté am vidéo euh, complet entraînement des Lions ak entraînement Algérie en tout cas Mahrez bu ñëwee xol na suñu gazon bi mais gazon bi aussi naa si ñëw beneen débat ndax gazon bi baax na ndax tegu na si yoon ndax nekk na ci code dem naa ba tim ko ba xol ko caméra na ko zoom naa ko après dama leen bàyyi ngi joxe sin avis man mën naa joxe sama avis do benen vidéo la ci kanam restez connecté mbok yi wax leen ngeen doole ma yeneen plateforme yi c'est très important